lakum shukran lakum sunu mag ñu baax yi fi daan yare dinu wan di yoon wuñ deeju bismillah arrahman arrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi ñuy teewlu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziyaare di ñaan yàlla sunu borom defal ñu tawféex defal ñu sutura ñu ngi dellu di leen baalu àq bu baax a baax ci koor gi te di leen baal di ñaan yàlla koor gi yàlla bu nekk suñu mujjuk weeru koor waaye yàlla nañ yàlla nangul suñu woor bi barakatil quraan wa bi xurmati chahri ramadan mbokk yi nañ ak yéen ci seen émission sawtul xaq ngeen baaxu ci ànd ak seen mbokk Mouhamed Fadel seeni mission fii nga xam ne moom ngeen ko baaxoo am muy Rafah TV ñu ñëwati tey fas yéene waxtaan ak yéen ci beneen tomb waaye tomb boo xam ne daanaka dañ koy jëlee ci koor rek muy koor ak societé bi dal gi nga xam ne moom la mën a indi ci biir penc mi yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن خاتله أحد أو سابه فليقل له إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne bu fekkee kenn ci yéen woor na maanaam ku woor ci yéen ku manti doon ku woor ci yéen ku manti doon na fexe ba kooram googa mu ca def mukk loo xam ni lu defewul la maanaam jëf joo xam ne jëf ju ñaaw la waaye na fexe ba bum wax mukk wax joo xam ne wax ju ñaaw la mu jëf jëf ju ñaaw waaye bum def bum wax wax joo xam ne ku ko dégg rekk na cam dem ba mujj yàgg mu wax ne bu fekkee nit jóge na ca àll ba sax ñëw attaqué ko physiquement walla moralement nit jóge na fee wax la wax ju ñaaw fàttalikul ne yow da woor fàttalikul ne da woor bu fekkee mënoo noppi na tekk seetaan ko mu def la muy def wax ko ne ko man day dama woor bu fekkee nit jóge na fee attaqué le physiquement kadalika noonu wax ko man dama woor nga gis ne xadis bi boo ko xoolee ba ci biir daf lay wax dëgg-dëgg njariñal koor naka la mën a indee ak dal ci pénc mi waaye naka la mën a wàññee violence bi nga xam ni moom la pinc mi di dund mbokk yi kenn ku ci ne xam na ni Sénégal fim ne ku tëdd it nelawoo Sénégal ku tëdd it nelawoo kenn ku ci ne yaa ngi xalaat ne jamono ji ñu ne Sénégal gii ak tension politique bi fu mu toll luñ ne la xew na Sénégal du la bett luñ ne la xew na Sénégal du la bett ak lu mënti doon nag man de personnellement luñ bu ma xëyoon ñu ne ma Sénégal nanga ma fi xew loo xam ni mosuma ko woon a dégg ak loolu lum rëy rëy rëy dama naan ah loolu de. amrun aadi wa tabiiyun jiddan maanaam mbir la moo xamee ni lu waroon a mën a xew la ci bu fekkee yaa ngi suivre di bàyyi xel li nga xam ni mooy la xew li tax ma jël weeru koor lëkkale koog tension bi nga xam ni moom la ñuy dund tey mooy ñun dañoo wax ne ay jullit lañ léeg lañ nga dégg ku naan soixante quinze pour cent musulman waaye ëpp na ko boo dee xool Sénégal man nga ni quatre-vingt wala quatre vingt pour cent ya ay jullit lañ ci bu fekkee yaa ngi xool dund wi te bu ñuy jullit kon ñi ngi woor sunu borom santuñu woor ngir ñuy xiif rekk santuñu woor ngir ñuy mar ak woor ni mu mettee ak weer ni mu bare donte dese naa bari waaye ci doomu aadama ak bànneexu bakkanam kon war nañ cee tirer leçon yoo xamee ni nun askan wi nga xam ne ay jullit lañ te ëpp ci Sénégal nekk majorité ñu jariñu ci jariñu ci fexe ba bu ñu jugee ci koor gi suñu population maanaam penc mi dal ñu am apaisement loolu dafa war a am parce que nekk gi nekk jullit suñu borom farataal ci ñun koor ñuy woor mais wërta nekk loo xamante ni léeboon ak lu peen la war a doon suñu wooree uh, uh, weer maanaam jihaat ci suñu bakkan war nañ coo mën a amee loo xamee ni njariñ li du yem ci ñun rek maanaam personnel comme man Mouhammad wala Cheikh Mourtada wala keneen waaye pénc mi généralement <laughs> waaye malheureusement léeg-léeg ñaar dana tax duñ ko ci jëlee bi ci njëkk moom mooy ñun koor léeg-léeg dana ñëw sax ba jàll lenn rek lañuy ñuy remarqué ne koor ñëw na ba jàll mooy xiif gi ak mar gi ak mettit wi waaye du ñu teewlu sax suñu xol ne ñun ñi ngi ci jaamu yàlla goo xam ne war na ñoo mën a am njariñ loo xam ne kenn ku ci ne danga ko yëg te buñ paree penc mi yëpp war nañ koo yëg muy benn ñaareel ba moom mooy pour nga gis pour nga gis benn borom xam-xam boo xam ni dafay nekk ci place piblique bi comme télévision moo xam télé privé la comme euh, euh, euh, maanaam national pour nga gis ci koo xamee ni dana indi ay leçons yu leer naññ ci koor gi nga xam ni nit ki war na ko ci mën a jëlee ba pare lëkkale cooptation bi nga xam ni moom la ñuy dund lu jafe lay doon léeg-léeg da ngay seetaan télé yàlla xam na ni reetaan daf lay jàpp nit koo xam ne dañuy kilifa ak diine la wala nit koo xam ne dañuy borom xam-xam la di wax ak nit ñi di waxtaan ak ñoom yaa ngi ci koor xam li nga xam ni moom la ñuy dund ci tension tension politique bi nga waxtaan ak nit ñi ba jóg weer mën ngaa waxtaan ak ñoom di leen indil naan nangam ak nangam nangam ak ay folklore kese waaye pour nga gis ci ku indi dars boo xamee ni da koy lëkkale diggante koor ak li nga xam ni moom la ñuy dund ci tension ak nan lañ ci war a mën a jàngee ba dalal maanaam fitna ji nga xam ni moom moo ñu yoon c'est rarement wala sax mën nga ni amul xoolal télé yi nga xamee ni moom la nit ñi gën a suivre lan nga fay gis ay taaxuraan ay waxtaani politique yoo xam ni dafay gën a augmenter tension politique bi ñuy dund ana borom xam-xam yi ci réew mi borom xam-xam ñoo xam ne xam nañ nit borom xam-xamu diine la ñuy wax waxuma folklore yi de waxuma ñi nga xamee ni ñoom dañuy taaxuraan pour seen poste duuf déedéet ana borom xam-xam yi réew mi nga xam ni ñëpp xam nañ ni ñee xam-xam la ñuy wax te ku leen teg ci kanamu askan wi. danañ leen dégtal loo xam ni danañ ci mën a jëlee lool man naa dalal réew mi te danañ wax dëgg ñi nga xam ni ñoo jiite danañ wax dëgg ñi nga xam ni ñoom ñooy opposé mais kan nga dégg ko wax dangay dégg koo xam ne ni buy wax day faral wala mu wax di raay wala mu wax pour maanaam folklore rek loolu doo nga tax muy wax. kon mu mel ni jot na sëkk ñun ñi nga xamee ni ay jullit lañ ñu jël aw dars wu rëy ci koor gi fexe ba dalal fitna ji nga xam ni moom lañuy ñuy dund ci suñu xel fexe ba bañ koo dund ci suñuy jaram ndax fi mu toll fitna ji kenn ku ci ne yaa ngi koy dund ci sa xel yàlla buñ ko dund nag ci suñu yaram ndax ku tëdd ku ne fi mu ne yaa ngi naan Sénégal fii ba 2024 lu ne mën na cee xew ñi nga xam ni ñoo ñu jiite ñoom ci seen jëmmi bopp leer na leen ne fii ba 2024 lu ne mën naa xew Sénégal waaye li gëna a xoromu ci loolu moom mooy ñoom ñi ñu jiite xam nañ ne fii ba 2024 lu ne mën na fee xew ba pare yor jàmm ji manoon a dalal sénégalais yi waaye duñ ko def <laughs> la ilaha illallah xanaa lii moom mooy lu kenn mënta xam damay wax ni imagine toi président Macky Sall bu fekkoon xam nga discours à la nation bi nga xam ni moom la doon def veille 4 avril bi passé imagine toi président Macky ñi nga xam ni ñooy prisonnier politique yépp mu xëy génnee leen ñi ñuy tuddee ay 500 personnes ñépp mu génne leen wëlbatiku dal di fexe ba xool ci réew mi ñoo xam ni faruñu fenn te dëggu te jàmmi réew mi ñor leen ku ci ne mu désigné la woo ne la dama bëgg ñu waxtaani réew mi fexe ba ak dal am ci waaye sëñ bi maanaam alwaqtu munasibun jiddan ñi ngi ci weeru koor ay jullit lañ te ñi ngi ci maanaam fête de l'indépendance ay sénégalais lañ ay patriotes lañ <laughs> mais est-ce que wu am na wenn waxtu wu gënoon a jekk waxtu yi waaye ndeysaan defu ko malheureusement defu ko te bu ko defoon du ko wàññi dara da ko yokk li lay wane ni maanaam mbir yi du fi yam day gën a continuer yéen a ngi gis benn rapport bërki démb koo xam ni nee na ab rappeur la démb sax laay wax yor semmiñ di traîner ci réew mi di saaga ay ndey di daggi day laa wax de wax ni képp ku damaa ànd ak Macky Sall te Macky Sall moo fi toog fa la force koo xam ne nee nga ma sa bët bi xonq na ma jamate la sama sémmiñ bii ba nga faatu te dara du ci mujj allahu akbar <laughs> fii la ko waxee Sénégal démb mi ngi doxee ay soxlaam dara xewul il paraît que nee nañ sax dafa mujj jël benn booy jam ko te mujjul fenn mbokk yi tension bii nga xam ni moom la ñuy dund nga yaakaar ni bu continuer nii nii nii nii nii nii ba 2024 te teew la ñu koo arrêté léegi nii fan la ñu jëm ñun askanu senegal fan la ñu jëm lu dul ne li ma la waxoon dong mooy am mooy fii ba mille vingt 2024 lu ne lu ne lu ne mën na fa xew te nag léeg danga dégg ku naan nañ ñaan yàlla sunu borom defal ñu jàmm réew mi réewum sëriñ la kenn da jàmm rek a fi xew jàmm jàmm kenn du ko kenn du ko wax de dees koy jëf jàmm dees koy jëf xam nga lii rappeur bi def ñu koy tuddee ma dof nday xawma te ba léegi justice at àddoogu ci te pourtant kii ñu naan nit dof moom lu lu ko yées maanaam lu ko gën a féete suuf la defoon justice ñëw daal di koy woolu tëj ci kaso bi loolu boo fekkee yow sénégalais bi yaa ngi koy gis di ko dégg moo ndax man nañ laa gëmloo ne réew mii yoon am na fi <laughs> man de ku ma ko gëmloo damay lànk ndax du ma du gis samay bët lu ne jar nga di ma wax leneen ma di ko gëm ndeysaan booy bi nga xam ni moom la ñu jam dafa wax wax ju doy waar journaliste bi da ko laaj na ko ndax dangay ngay porter plainte mu ne déedéet ndax suma ma porter plainte du mujj fenn ndax nee nañ Dof Ndeye maanaam rappeur bi ko jam nee nañ moom ak doomu président la république bi Amadou Sall ay xarit lañ kon du mujj fenn laa ilaha illallah mbokk yi bépp réew boo xam ne justice ba dañ ne képp ku ànd ak borom doole justice du la laal maanaam dañ koy fawee justice daal ku am doole dong la fi nekkal ku amul doole moom lu la waaye def moom yow yaay kumba amul ndey moomu la réew lu fa xew ëllëg bum la bett ndax ñi nga xam ni ñooy seetlukat yi nee nañ am nguur dëkk la nga xam ni mooy téye dëkk ba mu nekk ci dal mooy justice boo xam ni dafa équita dafa dafa équitable dafa dafa yamale yamale diggante koo xamee ni dafa am ak diggante koo xam ni dafa ñàkk ku am doole ak ku amul doole kumba am ndey ak kumba amul ndey ñëpp nekk ci kanamu yoon yamoo fa kenn ku ci nañu jox la say àq waaye lii xew ci réew mi ku ci waxul fii ba dem 2024 wallahi loxo dana dar géññam te du yóbbaale ab tib ndax nit ñi mënuñoo dëkk ci benn parti boo xamee ni chaque jour ñooy violenter askan wi di wax lu leen neex di def lu leen neex te kenn du leen wax dara weneen parti sénégalais wa ca des képp koo xamee ni ngaa nga ci wala nga wax lu gën a ndaw infraction bu gën a ndaw ñu jël la sànni ci kaso bi loolu mbokk yi kenn du ko mën a dund ci am réew ba pare di ko noppi waale képp ku ci noppi dëgg ñoru la ku ci noppi complice la nañ ko wax te dee nañ ko wax te te boo xoolee ba ci biir dafa mel ni ñi ñu jiite dañ ñoo bëgg a tiital ba duñ sañ a waxati tiital googu nag fu ne lañ koy jaarale des fois ñu jaarale ko ci ay journalistes des fois ñu jaarale ko ci euh, soi-disant des chroniqueurs des fois ñu jaarale ko ci ay hommes politique des fois ñu jaarale ko ñoo xamee ni ay anciens bandits lañ wala nangam <laughs> mais loolu. tiital saw askan kooku maanaam képp bépp njiit lu koy def sam xel fanaanul ci sa bopp ndax askan wii la fal jox la lépp askan wi la fal jox la teraanga june askan wi la fal ba pare saa soo jugee ñu jug saa soo toogee ñu toog saa soo jugee ni damay dem ñu xàllal la yoon wi askan woow bu fekkee dangaa jug ne da nga leen di tiital loolu loolu loolu kenn xamut lu muy nuru ba xam loolu nit dana ko def wala koo xam ni ku àndut ak sagoom la yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla sàmm yàlla na yàlla delloo si jàmm ci biir réew mi yàlla na yàlla tàggatal ñu ay nitu dëgg yoo xam ne danañ saña jàkkaarlook ñi tooñ ne leen yéen ngi tooñ réew mi nitu dëgg doo nga fi manqué ndax dangay gis koo xamee ni day gis tooñ gu leer naññ daldi ko fii jéggi dem di wax ak kañu tooñ réew mi daal moom buñ la tooñee ñëpp dañ naan ndeysaan boo jugee fayu nag ñu ne ah kii nitu fitna la kii nitu violence la hada lan yamurra hakada murur alkiram fala budda min radd kon nañu jaare ci weeru koor ñun jullit fexe ba jëlee ci jukko yoo xam ne danañ mën a dalal sunum penc danañ mën a dalal askan wi ñu dund ci jàmm ay élection bu fekkee nga xamee ni jot na kenn ku ci ne tànn kala soob te ñu bàyyi ñëpp bokk wax wax naa ko waxati ko ñu ngi jéggalu bu baax subhanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله لكم yi fi daan yare di nu di yoon wuñ dee